jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221. di nuyu suñu kilifa diine di nuyu suñu kilifa aada di ñaanaat réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm. Euh, tey nag ñu fas yéene def ay waxtaan ku ne gis na démb information yi nga xamante ni moo jot am muy xale yi nga xamante ni ñoo demoon mbëkk ji yàlla sunu borom jël leen ca diwaanu Tëngéej gox bu ñuy wax caw leen yàlla na leen yàlla yërëm. ku ne gis na tamit euh, tey président Macky Sall mu ngi war a tànn candidat mu upp boppi sénégalais yu bari aussi si noonu nag la ñuy ñëw séq ak waxtaan ki nga xamante ni mooy Cheikh Abdou Wahab Diop euh, nekk kilifa gu yàlla baaxal euh, damay wax ni des fois sax nit ñi woo ma ni ma yow de sa waaji moom kenn mënu koo jot may leen dafa fekk ni ku ci nekk ak na ngay liggéeyee te bët du yenn waaye xam na la bopp àttan te des fois bu nekk ci soxlay jaam ñi te day bëgg képp ku mu xas ba engagé rek. balaa jëlaat keneen nopp ci yow moo waral des fois muy xaw a muy xaw a ñàkk ñàkk jot pour ñeen ñi nga xamante ni yéen a may woo wala di ko woota doo leen ko jot day bëgg rek képp kum ci jëflanteel rek balaa jëlaat leneen wàccoo ak yow fa yéene Cheikh ak moom waxtaan bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mm-hmm. rabbi ansini munsalan mubarakan wa anta xayrul munsalina maa ngi di nuyu baax di leen delloo sama nuyu ak siyaare. Mhm. di rafet lu baax sama jotaante ak yéen. sëñ bi nag euh, soppe yi. Mhm. ñu ngi ñu ngi ñaxtu dañ lay woo duñ la jot. Mhm. Euh, ngay xaw a ngay xaw a xaw a raar bëriwul luñ lay gis. Euh, bëgg naa it nga leeral loolu soppe comme ni ma ko leeralee. laaj nga laaj ba am solo man dama dama di nit koo xam ni képp ku ma gis am ci woon yaakaar yéeg sa téléphone woo ma bala maa génn te bala maa jël keneen. dana xool doxee ma digg ak kooku àq ji dox sama digg moom ngir mu ñaanloo ma ak yaa yaakaar gi ma am ci man ba jàll ma doog jël keneen. Mhm. ñaara bayit mën naa laa jël waaye nag su ma la jëlee danga may may rek daf may temps tuuti ma taxaw ñi la jiitu taxaw la. Mhm. d'accord am na solo euh, sëñ bi ñu gis ni bërki démb Ousmane Sonko waroon na dem ci benn investirement fii stade Amadou bari mhm. euh, muy waa Pastef amaloon ko ci tànnee candidature am Euh, préfet gàntal jotaay boobu noonu ban njàngat nga ci am. waaw xam nga Ousmane Sonko du ma jug du ma denc di la ko wax ni mu mel yàllaa ko melal noonu ñaar xam na ni ñoom Ousmane Sonko lu mu mal rek nit ña fekk ci ko ca te Ousmane Sonko ni ko yàlla may mm, wax dëgg yàlla nangu nangu nangu mayu yàlla dana tax am jàmm. waaye wóor na ni Ousmane Sonko suñ ko bàyyoon moo def moo eh, def li nga wax noonu. waaw investissement bi bi il dana jàll. te bu jàllee ñoom du seen arrangement. kon nag li si am solo tam solo mooy. Sonko moom ni ko yàlla may. may na li si am solo mooy nan bàyyi lépp teg lépp ci loxo yàlla ci kàttanu suñu borom rek moo am solo. d'accord am na solo tey aussi tamit président euh, war a def euh, tànneefu candidature am euh, tey ndax am nga yaakaar. kan nga am yaakaar ne fi mu toll nii parce que Amadou Ba mu ngi fii ñeneen ak ñeneen kan nga am yaakaar ne tey war na wuutu Macky Sall. ah loolu de dama koy delloo ci suñu borom. Mm-hmm. ndax daal eh, tey ñaan yàlla képp ku Ousmane su képp koo xam ni Macky Sall tànn na la yàlla na dëppoog bëgg-bëgg réew mi. Mm-hmm. yàlla na dëppoog ki ma ki war defar réew mi. wallaay mm-hmm. ñaan. ndax it mag moom ku ko neex mën na ko tànn. waaye comme tànn rek yàlla na dëppoog ki mën a defar réew mi. Mhm. sëñ Tuubaa d' accord ma ñëw ci wàllu ñaan sëñ bi ku ne xam na ni ñaan mhm. dafa am ay bànqaas mhm. ñaan dafa am bunt. Euh, fi may njëkkee mu di wàllu listixaar. laaj nga laaj ba am solo muy listixaar ndax Alxuraan dafa wax ne waaye tuuti bu yoot min abwaabihaa. njàqari nit ki bu dee am néega seet mooy bunt ma nga ko a jaare kon nit ki mënu si koo ñaan mukk man mënu ma ko ñaan mukk te seetaluma ko. Mhm. bu lool rek du ma xam dëgg dëggi na ma ko war a ñaanale. Mhm. ndax seet mm, euh, nit ki ak njàqar yu mu mën di am. ak lu ko mën di gàllankoor te seet bu ko seetlee ba noppi doo ko mën a wax ni ñu koy ñaanale ndax seet mooy tànn loo yàlla nit ki bu dara sax su toogee ay fan rek war nay yërluwaat yi xoolaat lu gën ci moom. ñu leer ko mu doxee noonu. Hmm. d' accord kaaraange nga gis ni fan yi ndaw yi daanaka ñu ngi dem di mbëkki gaal gi. Hmm. ku nekk ngi ku nekk ku nekk ngi dem ngir ñàkk euh, kaaraange mooy waral des fois yenn jafe-jafe yi di am yàlla sunu borom dénk la ci ay secret ci wàllu kaaraange. laaj nga laaj ba solo muy kaaraange kaaraange ndaw yi nga xam ni dañuy dugg di dañuy génn di gaal yi dem bala ñoo jug dana war xool seen bopp kaaraange. surtout. Hmm. kaaraange day lu am solo. te ñu sàggan ci lool te kaaraange lu am sol te ñu sàggan ci lool bara nit ki ngus mooy am jafe-jafe di ko mhm. lu bari ñàkk kaaraange rek ko waral waaye nit ki bu fonkee kaaraange lépp lu mu mën di dugg suñu borom dina ko si musal mhm. ci kàttanu suñu borom kaaraange nag may na ma ci loo xam ni képp koo xam ni jot nga ma téléphone ci kàttanu suñu borom danaa taxawoo ci kaaraange noo xam ni maanaam danga ma woo sant ma am na loo xam nag dara gën ci alxuraan alxuraan lu mu caay taxaw. Mhm. man ñëwee mu ci xaw ak biddiw yëpp ak ak ak les euh, pitaaw dara laa si ñëwee dara gën ci alxuraan alxuraan karim. Mhm. ndax alxuraan maa faral naa fi kiram si alxuraan bawul dara kon nag lépp lu mën ñaan rek ci alxuraan lay doon. Mhm. d'accord sëñ bi li yëngal dëkk bi nag waral coow li. mu di jaaro bi. te jaaro bi damay wax ni keroog ñëw naa Touba jël benn nga ne ma déedéet. jaaro bi nekkul nit day ñëw rek jël takk dem dafa am noo koy liggéeyee xool biddiwu nit ki xool couleur nit ki euh, sincère boobu nga ci sincère mosuma koo gis ci wàllu jaaro bi. laaj nga laaj bu am solo muy jaar jaar de li wittul mooy yàlla demal defal na ma tawfeex joo xam ni. Mhm. képp ku yàlla dogal ba ma jox jox la nga tag ko. Mhm. wallaay la xasim danga ma woo de mujj woon démb rek nit woo ma di ma seedeel loolu. ci jaar mhm. bii nii. képp ku yàlla dogal nga takk soo nekkee réew danga da nga ñëwaat jàmm su fekkee da ngaa ñàkk ci kàttanu suñu moom da nga womal. Mhm. su fekkee da ngaa dugg ci ote da nga ci jàmm. Mhm. lépp looy lijjanti te takk na la yàlla defal nga takk na la yàlla defal tawfeex nga takk boo ko takkee mhm. lépp loo xam ne ngi koy lijjanti ci kàttanu suñu moom suñu moom dana ko jàppandal. te boo bëggee nit ki dara takk ko bis bu yàlla defee ngay mbokk toog rek da nga gis dara ci kàttanu suñu moom soob yàlla. te nit ñi des na la foog fonk lool. Mhm. te ku nekk ku la gis bëgg la. Mhm. suñu borom. Mhm. Euh, ma ñëw ci wàllu wàllu wàllu wàllu ubbeeku ba gis naa ci ñoo xam ne amatuñu woon yaakaar ci seen bopp ñii dem nañ ba jaay seeni magasin ñii dem ba dugg ci lu ne ñii dem di di di di immigré ji te yàlla sunu borom boole la ak ñoom nga dimbali leen ba ñu samp ay entreprise ci réew meeg ci bitim réew wàllu ubbeeku. laaj nga laaj ba am solo muy ubbeeku ndax it nit ki dana wax nit ki saa su xëyee war na ñaan lu ko ubbi. ubbeeku moom. dafa baax lool ci doomu aadama bi. Hmm. waaye yàlla defa na ma tawfeex joo xam ne képp ku yàlla dool nga jo nga jot ma téléphone. Hmm. li may def moo ko defalee ba noppi ci kàttanu sunu borom da nga ubbeeku ubbeeku xam ne lépp loo dugg rek da nga ciy ci kàttanu hmm. sunu borom. li ma si yàlla may na na la yàlla defal tawfeex ku ma gis tawam ba noppi rek. li ma defal li ma defal ci kàttanu sunu boo tëjoo da nga ubbeeku. ci kàttanu sunu borom. loolu na tawfeex yoo xam ne na ko képp koo xam ne yàlla bool na waa yow nga woom incha allah soobee rek ci kàddu mhm. suñu sëñ bi sëy jafe-jafe yi léegi sëy daanaka ah, goro yeeg njëkk yi daanaka da ngay sëy si ñu lay ñu lay indil ay jafe-jafe euh, yàlla sunu borom dénk la ci sëy yi nga xamante ni yëpp day am ay jafe-jafe lépp lu mus a jaar sa loxo yàlla sunu borom def na ci saafara. waaw xam nga euh, sëy moom. képp koo xam ne da nga eh, yor sa soxna am jafe-jafe diggante nit ki ak borom këram. Hmm. ami jafe na la yàlla defal tawfeex nga wooma jafe-jafe ya nga xam ni am na ko sa dig digg ñaar ñaar diggante way dencante ya hmm. ñoom ñaar de ci kàttanu suñu moom bis bu ma woowee moo xam ki nga xam ne mooy liggéey moom mooy liggéey bu ma woowee ci kàttanu suñu borom su ma ko defee li ma ko def ba noppi ñoom ñaar ñi nga xam am na ba say ba rëng ñoom ñaar ñoo gën a bëggante. Hmm. ñoo ñoo gën a bëggante laa. loolu li ma tawfeex ñu si yàlla defal mhm. ku man doon na yàlla defal tawfeex nga jokk ma rek boo ma jokk man mhm. man ne du ma wax lu ma du def lu ma wax mhm. lu ma gëmul xam naa dara lépp lu ma def lépp lu ma waay wax su ma ko def waaye su ma ko mënul naan la xool keneen waaye li wéttul mooy lépp loo xam ni lii nga wax nii yàlla def na tawfeex yoo xam képp ku ma wax da nga xam dara incha allah ba tey ku wax sëy wax jafe-jafe néegu biir sëy ñu gis ni néegu sëy yi daanaka lu bari day xaw a yëngatu ci wàllu impuissance sexuelle muy néew kàttan waaw. Mm-hmm. laaj nga laaj bu am solo. muy néew kàttan. Mm-hmm. néew kàttan nag li ko mën a sob dafa bari. waaye ak lu mu mën di doon. Mm-hmm. buñ ko xoolee ba noppi. ba xam lan moo la gàllankoor lool. ci kàttan su moom li ñu lay def buñ la ko joxat buñ la ko defee ba noppi. doo doo waxati wàllum néew kàttan. leneen ngay wax waaye néew kàttan moom doo ko waxati moom. loolu moom ñu sikk sàkk. question bi waa association Cerce Marie ñoo ma ko yónnee ndaw ñi. Mm. kenn sëyatul léegi xale jigéen ñi. sonn nañ vraiment ñi nee nañ sax boo takkee fukk du tee xale jigéen nañ fi des yàlla sunu borom dénk la ci secret boo xamante ni képp ku mos a jaar ci yow amoon nañu dem ba am 53 ans 63 ans am jëkkër yàlla sunu borom jaar leen seen loxo ba tey ñu am jëkkër ba am ay sët waa xam nga loolu it jamono moo moo toll foo xam ni waxtu ak saa su nekk nit ñi nga am jafe-jafe boobu am na su ñoo xam ne yàgg lool mu mën ba sëy mhm. am na su ñoo xam ne it seen rakk day sëy bàyyi la ñoom du sëyagul waaye la ko waral ak lu mu mën doon rek des koy xool mhm. bu ñu xoolee ba noppi ci kàttanu sun borom su ma defee li ma ab téere lay doon téere bis ma jaa nga takk balaa téere bee tilim da nga dégg alxayri maa la wax loolu allahu akbar ak suñ tubaab balaa téere bee tilim bala moo tilim da nga dégg lu leen nañ incha allah yàlla incha allah rabbi. Mhm. loolu yàlla may na defal ma tawféex. Mhm. Hmm. mu ngi noonu Cheikh Abdou Wahab Diop numéro téléphone baa ngi noonu di daw ci écran bi boo ko woowee rek foo mën a nekk ci réew mi ci bitim réew yàlla sunu borom dina la boole ak moom. ci kaw sa aajo nar a faju ci moom sëñ bi ma ñëw ci wàllu nopp damay wax ni noobu 24 heures c'est la première fois ma gis koo xam ne da koy def mu di wàllu nopp. loolu laa laay am solo te tamit loo xam nag bariwaa na nit ñi mën naa ko tam jafe lool. xam naa ci dara bariwaa nit ñi mën na ko tam jafe lool waaye nopp man de maa ngi ci secret yoo xam ni ku yàlla defal tawfeex ba nga jot ma vingt-quatre heures gën ngaa gàtt gën ngaa bëri ñett fan. li nga bëgg muy nopp bool naa ay nit ba dara. waaye li mu yottul mooy ku yàlla defal nga woo ma nag du ko defal nag ñoo koo xam ni day caaxaan. Hmm. ku ma koy defal rek na nekk koy takk wal mu nekk koo xam ni mm, dangay na euh, sa soxna la wala mu nekk koo xam ni. <coughs> say doom la ndax loolu moo xasee def jeex na moo xasee jeex xam-xamu ñuul de waaye li wéttuur mooy ku ma ko defal noob googu noonu da nga ma waat. Mhm. alhamdulilah loolu mën hmm. naan leen. Ah, yoroo leen ñii naan leen lii nga war a indi un million deux millions mais yàlla sunu borom ba la jaaralee ci ñoom. Hmm. alhamdulilah waa kër ga sax ñoo ni la kaay ñu may la soxna. <laughs> mu doon loo xam ne da koy def ci wàllu diine ci wàllu lislaam aussi tamit. Hmm. moom solo loolu. loolu moom. Mhm. Euh, du benn du ñaar. Mhm. du benn du ñaar ndax léegi damay bool ay nit ñoo xam dañuy xool naan kii nan la war a toppee kii. Mhm. te lépp nag dara génn ci ñaan yàlla suñu borom. dëgg la te dara génn ci Alxuraan Karim. gis nga Alxuraan bëggu dara. te jullit ñun jullit ñi li ñu war mooy di ñaan suñu borom ci jëm te te di ko jaar ci Alxuraan moo gën a seetlu ñaan fop ndax suñu moom li ci Alxuraan waysa saalak xibaari xan ne fay nii xaribu mujj mm. daxot daay mm. ki ma gën a jig mooy ki may ñaan ma koy may kon nag ñaan fi leen ko fekk te fi koy bàyyil mm-hmm. waaye lii nga xam ne laaj nga ma ko wax nga ko foofu noonu dara génn ci alxuraan karim mm-hmm. su ma taxaw ci alxuraan billaahi wallaahi taala da nga am ne bëgg incha allah am na solo sëñ bi wàllu dëddale waaw laaj nga laaj ba mu solo dëddale nag dafa mat a leeral surtout waaw ndax dëddale mm. amaana gis ñaar ñoo xam ni seen si diggante baax na lool ba noppi njëriñ la dee ko daddilee mhm. waaye yi mi da gis sa doom dem ànd ak koo xam ni dala woon ba ànd moom mm, mën naa jaar yoon woo xam ni du ko yoon wi nga bëgg te mën naa mhm. yàqu mhm. kooku nag moom man nañ ko daddale wala ku liggéey sa doom sax takk ko waaw oh, wala ko xam dafa liggéey sa doom takk ko liggéey liggéey boo xam liggéey ban takk takk takk gam takk mu ak moom du sun bokk sun na maam wóot ana moom ana moom noonu. Mhm. kon nag kooku mën suñ ko dëddale. Mhm. ak nit kit maanaam ñaar ñaar ñuy ànd. sin ànd nee tax ñuy ànd. Mhm. bu yàlla taxul maanaam ak lu sa nekk rek nga xam ni li lu tax. booba mën na liggéey. waaye li wéttoon mooy dëddale moom dafa am aw yoon képp ku ma woo téléphone di ma dëddaloo man xam. lan moo waral lool ba noppi. Mhm. su loo xam ni lii wër ma ko du ma ko dëddale. Mhm. su dee loo xam ne war naa ko dëddale dinaa ko dëddale. Mhm. Euh, wàllu papier diaspora bi ñëpp ñu ngi bëgg a ñëw seeti seen njaboot màggal Touba gaa ngi jub si ñëpp am jafe-jafe ñëw yàlla sunu borom jaarala ñoo xamante ni damay wax ni ku ñëw sa kër Touba wax yàlla la fay dal ci ay ay moodu moodu sax ñoo ëppal ña fay dal ci dëkk ba te ñoom ñëpp amoon yaakaar ni dootu ñëwat ci réew mi yàlla sunu borom jaarala ak ñoom. laaj nga laaj bi solo de boo xam naa ne la ñi ma ciy woo ñoom de jomul ñu ngi jàkkaar ak man li may defal ñoom xam na man xam naa ko waaye nag sutur daa baax te bëgg ma tudd tur waaye nag ñi nga xam ni woo nan ma jëflanteeg man xam nan ma xam naa ne te fettu ma leen waaye ku yàlla defal taw feex nga yàgg fa ak noof man yàgg war na nga bëgg lu jëm ci wàllu kayit rek nekk ci réew ma ci kàttanu sama li ma ko defalee ñetti fan de laal may ñetti fan. ñetti fan da nga gis résultat da nga dégg résultat moo xam dañ ko nangu moo xam da nga ko bëgg a dugal boo ko dugalee ñetti fan nga dégg résultat boo ko dugalul ñetti fan jox la rendu. waaw mhm. xam naa nag li duuf ci nag bi xajul ci cin bi. Mhm. te dëkk bi xat na. Mhm. te soppe yaa ngi taxaw ku ne xam na ne yow sa jot bariwul. Euh, tey nag dama laa njat rek ah, jëlee la Touba. Euh, nga may ñu ci sa jot. sëñ bi ndaw ñu bari amatuñu yaakaar ci seen bopp muy. wàllu liggéey sëñ bi dëkk bi métti na ndaw ñi da gis sax koo xam ne day dajale dem ut cek-cek di daan dooleem ah, dëkk bi métti na te ku njëkk a yuuxu da ragal wàllu liggéey sëñ bi dimbali ci nit ñi. laaj nga laaj ba solo tamit loo xam léeg-léeg gis ñoo xam ni doo xam nuy liggéey. billaahi xëy rek te loolu du ci ñoom de danoo ñàkk wallaahi danoo ñàkk bu liggéey rek. wallaahi waaye suñ ko suñu liggéey dem waaye ku yàlla dafa taw feex muy anam boobu noonu nga woo ma téléphone ma seet te xam lan moo ko waral ci kàttan suñu borom xam nga loo jàmbat di wàllu liggéey du nekk wàllu liggéey moom. Mm-hmm. te bu ma la taxawoo foo man dugg ci kàttan suñu borom wallaahi alxasim des na la bëgg te des na la fonk te danga nga fa liggéey loo jar ñoo xam da nga ko bokk say waajur. Mm-hmm. li ma si yàlla may man naa see taxaw nit ku bu wér. Mm-hmm. waaw. wàllu bayre damay wax ne sa bayre nag moom. Hmm. yomb la gis parce que nit ñi mën nañu la defal bayre boo xam da ngay romb ñu naan la diw diw diw diw. waaye bayra buy ànd ak mos. Hmm. <laughs> man ci yow rek laa ko gisee. Hmm, waaw xam nga bayra. Hmm. dafa bari façon. dafa am bayra boo xam ne nit ñi dañ lay dégg ma lool. waaye dafa am boo xam ne da nit dañ lay bëgg. ngay mos ànd ak mos waaw. am na solo. ñaari benn kuus man doon rek ba ma jot téléphone mën naa ko def ci kàttan suñu borom. jaaro yii nii am na si jaaro boo xam bayra dong ko tax a jug. am na si jaaro boo xam looy liggéey looy lijjanti moo ko tax a jug. waaye ci kàttan suma bis boo ma woowee naa la taxaw ci wàll woowu bu wér. Mm-hmm. ñun ay jullit lañ. Mm-hmm. di teel bi di ñaan yàlla suñu borom. Mm-hmm. dara génn suñ su eh, di eh, arxuraan karim nag. dara génn arxuraan ko wàcce muy mm, li ma wax si si minal xulaani maa woo si fa am. moom suñu moom ngir mu saafara yi jamono doomu kon nag nit ki ak fu mu mën nekk bu yàlla defee tawfeex moo ma dinaa taxaw ba xam ni yàlla maye na te li yàlla mayit ki ko ki ko mën a xam mooy ki téléphone ki jël téléphone woo ma. Mhm. nit ki nag bu la neex mën ngaa dem fu nekk man ngaa wër ba dajal nga doog maa woo. Mhm. Mhm. boo wëree ba dajal nga doog ma woo. bis boo ma da nga xam ne yàlla may na. ñi seen borom may nag bari na lool waaye nit ñi na ni bàyyi xel ni wala sax mbokk sëriñ si na ni xel ni lépp lu ñuy dugg rek na nekk loolu man dañ xalaat ëllëg am suñu borom lépp lu waay def rek dana la ko la ëllëg. waaye man xam-xam bi ma yàlla maye. Mm, yoon la ma génn ko nit ñi mën cee jariñu suñ jëriñu ëllëg man danaa ko layu suñ borom. Mm-hmm. li ma may te man ci taxaw te man cee taxaw ay jaamam kon nag warteef la ma génn maye li nga xam ne suñu borom may na ma ci xam-xam. Mm-hmm. man de eh, sama génn du bari de sama génn du bari. Mm-hmm. waaye képp ku ma woo danaa la taxaw. ko yàlla defal tawfeex nga jot ma xam ban yitte la waaye du bokk ak yitte ji ngay wax nii moom. Mhm. incha allah d'accord am na solo mu ngi noonu ah mu doon loo xam ne it mën naa jee def seede ndax mosuma gis ci àdduna képp koo koo xam ne da ñaanal ni la demal bu sa soxla fajoo ma doog laa nga doog maa fay ci moom rek laa ko gisee da lay ñaan ba pare garanti la. Hmm. mu di Cheikh Abdou Wahab Diop numéro téléphone baa ngi noonu di daw ci ecran bi moom lañ amoon fii sëñ bi ah, tey lan ngay tàggatoo ak looy ñaanal soppe yi. waaw maa ngi leen sant bu baax te di leen njëriñu ñi doo ngeen bëgg. Mm-hmm. waxtu saa su nekk suñ ma koy gis fu ma nekk ngeen fekk ma fa. ndeysaan. kon nag maa ngi leen si ñaanal baax. yaa baax. di ñaan suñu boom dafa leen tawfeex ak mm-hmm. taysiir. Mm-hmm. ci barkab Sëriñ Tuubaa. sant naa leen lool. di sant nag mboolem ku may dégg sama kàddu. ñi si biir réew mi ak ñi si bitim réew. ñun moom li li waral génn lu leen doomu aadama yi sonn na lool waaye nag. maa ngi wax laa taqnatu min rahmatillah booy naag mukk ci yërmande yàlla mhm. waxtu ne saa nekk sabab leen mhm. ndax xat suma wax na ci alxuraan mhm. waaye te ko seen sabban sabab yi kon ñaan yàlla suñu kon nag képp ku yàlla dafa tefee nga wooma naa taxu ba incha allah maa ngi leen sant baax nag tey di leen gërëm incha allah rabbi nga xam ne yéen àndoon ak ñun di ñu suivre jox dig daja ci suñu yeneen émission fii ci people 221